bisimila mbokku internet yi dal leen ak jàmm Pape Ndiaye bokk ci ñi gën a yàgg ci kasub Sénégal jot na génne ay kaddu jëmale ci jéggal gi ko président jéggal génne ko kaso ci waajtaayu tabaski bi Pape Ndiaye góor gu am taxawaay ay atam toll ci ñeent fukk ak ñaar mu nekkoon ki gën ndaw ci àndandooru Alioune Abi Talib Samb ñu gën koo xam ci turu Ino moom Pape njaay may nañ ko mu génn kaso ginnaaw si nga xam ne jot na faa def ci lu tolloo ci ñaar fukk ak Macky Sall moom moo ko jéggal ci wàccaayu tabaski ji daanaka moom Pape Ndiaye moom mooy ki gën a yàgg ci kasob senegal benn doom ci ndeyam ak baayam amul soxna amul doom Pape Ndiaye dellu na ca ay waa këram fële ca Rufisque quartier Fass ku yor journal yéene kay bi di l'observateur di nga ci gis euh, na muy waxee ak di nettali anam ba mu nekkee woon ca prison ba nam fa duggee ba ni mu génnee ci ay kàddoom muy xam la ne moom mi le di Pape Ndiaye gëmul doon benn boromam ya ca prison ba ba ñu yëgee ne kile di Pape Ndiaye dañ koo gracier mbégte ak contentement la ñu am bu ñu sukkandikoo ci kaddu Pape Ndiaye moom nag jot naa fàq ñaari yoonu rëcce ca prison ba daw dem te li ko waraloon mooy bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ne tëj bi ñu ko njëkk teg ab injustice la woon maanaam teguwul ci yoon Pape Ndiaye ne prison bi am na lu bari lu mu def ci man waaye maa ngi beral cant ak ngërëm ki nga xamante ne moom mooy ino loolu muy ak kàttanam ngir mën a delluwaat ci biir société bi tegu ci yoon bu njub li am ba des kay mooy ya ñëpp xam nañ ne Sénégal bi mu bàyyi woon ci biti ak bi mu fekk ci waatu wuute nañu lool lii nag lañu naan tukki ci sa biir réew